asalaamaaleykum euh, mbooloo mi asalaamaaleykum askanu Sénégal euh, ci àjjuma ji ci fukki fanu zulhijja euh, di leen ziar di leen dolli ziar di leen delloo ziar di nuyu di sargal bépp kilifa diine bépp kilifa aada euh, effectivement aussi di sant sunu borom di salli ci gën gi mbindeef euh, di wax na rek kuréel biñ naan m ñoom ñoo ñëw effectivement tey ci bés bi euh, pour waxtaan ak askan wi m comme ni ngeen ko xamee ca 23 juin 2011 la judd woon ay sénégalais nga nekk ca ay sénégalais yu nga xam ne yii ci kuréel yëpp lañu bokk ñenn ñi ñoo nga woon ci nguur gi ña nga fa ba léegi ci position yi gën a kawe ñenn ñi nekk ci opposition bi nekk ci opposition ci opposant yi ñu gën a ràññee ñenn ñi nekk ci société civile bi mais bés buñ daa réunion fii ku nekk booy dugg dangay ngay summi sa xaftaanu politique ak sa yenn conviction yi sa xaftaanu politique boobu nga wekk ko fële ci bunt ba ba nga xam ne boo duggee fii euh, Sénégal lañu fi wax Sénégal moo ñu ñor Sénégal la ñu bëgg mu jëmale kanam donc m boobu nekkoon démb nekk tey ñu bëgg mu nekk ëllëg moo leen woo ci bés bi pour mu nekk bésu wàcce kaamil pour ñi nga xam ne ñi seen bakkan rotoon na ci mbedd mi te doon xeexal askan wi euh, wàcceel kaamil euh, sunu xale ya fa daanu mais ak keneen képp ku fa daanu nga nekkoon homme de tenue wala nga bañoon nekk homme de nga am fa ay gaañu gaañu ñooñu la ñu wàcceel kaamil tey mais di wàcceel kaamil tamit ñi nga xam ne ñi comme ñun lañ fi nekkee woon ñu siiw lool te nekkatuñ fi euh, di leen wàcce kaamil donc tey bésu julli la euh, bésu fàttali la bési bésu fàttaliku la donc ci biir loolu euh, la m woote ah di fàttali rek boobee ca 2011 Euh, nit ñi jógoon nañu askan wi jógoon nañu euh, ñëpp taxaw pour vraiment euh, aar seen chartum réew aar organisation wu réew mi pour xeex pour que élection yu fi mën di am mu nekk élection yu leer kay gañe gañe Euh, buñ ci paree jàmm ne ñooy euh, ñooñu aussi xeexoon fi lu ñu naan bon gouvernance mooy rek de manière générale naka la ñuy réew mi naka la ñuy bokkee di liggéeyandoo ci réew mi te nga xam ne lii lépp dana leer ku nekk gis ci sa bopp euh, ca booba jamono aussi nit ñi yëngatu woon fi askan wi yëngatu woon fi pour ay mbirum électricité ay mbirum euh, liggéey wut fu ñu daane seen doole ak seen àq ci mbirum aussi wér yaram ci mbirum njàng ci mbirum mbay ak ci mbirum inondation ak ci mbirum euh, dund bu nga xam ne bii dafa seer ak yeneen ak yeneen euh, di fàttaliku tamit donc ñi nga xam ne ñi seen bakkan rotoon na ci ñenn ñi ñu lim ren rek parce que du ñu mën a lim ñëpp mooy yéen a ngi fàttaliku Mamadou Diop yéen a ngi fàttaliku Ousseynou Seck yéen a ngi fàttaliku madame Banna Ndiaye yéen a ngi fàttaliku Mamadou sii ak ñeneen ak ñeneen mais comme ni leen ko waxee sànq rek di fàttaliku aussi ñii nga xam ne fii fii ñu toog ñoom ñoo fi toogoon démb doon xeexal askan wi ñu xam leen bu baax a baax a baax di ñaan yàlla ñoom ñëpp ñi ñu lim ak ñi ñu nanar lim. Euh, yàlla su euh, suuf sedd seen kaw et yàlla yóbbu leen euh, jannatil firdaws ca àjjana yi gën a kawe donc ci ñooñee ñooy fàttaliku Amath Dansokho di fàttaliku Ousmane Tanor di fàttaliku Ibrahima Sène di fàttaliku Malick Ndiaye di fàttaliku ki nga xam ne kii vraiment moom moo fi aussi amoon taxawaay bu am solo parce que organisation yi yëpp moom ak sunu rakk Ousmane ñoom ñoo ko doon ŋànk muy Ibrahima jaañ ñu ko doon wooy IBES ak sunu jigéen pharmacienne madame Anta Ndour vraiment ak ñeneen ak ñeneen ak euh, benn kàngam professeur d'université su ma ko fàttaliw moom moo bind livre bi moom moo bind livre bi moom moo amoon xelu wax ñu ñun ñëpp ku ci nekk képp ku bokkoon m nañu ñun ñëpp ñu bind livre bi nga xam ne page bu nekk kenn ci ñun dugal na ci kàddoom ñun ñi fi toog ñëpp ak ñeneen ñu fi newul ku ci nekk duwaloon ko kooku moom mooy professeur Yoro donc moom it vraiment ñu war ko rendre hommage professeur Yoro Fall boobu euh, moom moo euh, tax ba liggéey bi àntu ba nga xam ne fii ñun sunuy sët sunuy sëtaatu sët dinañu mos a xam pour que kenn bañ a fàtte ko mouvement du m juin mos na am te lii moo taxoon ñu jóg te nit ñi ñoo fa nekkoon di xeexal askan wi fàtte par parloo yi fàtte partisanerie fàtte parti politique fàtte seen bopp ba nga xam ne euh, li ñor Sénégal rek euh, lañ ci wax donc euh, moom it vraiment yàlla na ko yàlla yërëm donc M23 comme ni ñu leen ko waxee di ñaanal ñun ñooñu ñëpp fa ñu nekk mu gën a leen euh, fii ñu nekk nii ñun ñi donc bés bu dellusi bii tamit a ah, dañ cee war a jox ay digle digal ndigal yóbbal ak xelal di ko jox ñëpp nag di ko jox ñi ngànk nguur gi tey mu di pouvoir mu di opposition mu di société civile mu di bépp doomu aadama bu yeewoo Sénégal pour rek Sénégal jëm kanam euh, donc ci biir yóbbal boobu Modiane Ndiaye wax na ko sànq bon yëfu charte réew mi mu ngi ci mais aussi institution de la république yëpp ñoo ngi ci biir pour que naka lañ leen di renforcer naka nit ñi leen yore naka lañ leen di informer naka lañ leen di former ba nga xam ne bi seen taxawaay euh, leeraayu la ñuy liggéey aussi euh, yokk transparence pour que lépp nit di def war ci mën a wuyu war ci mën a jox leeral ak administration bi mooy kuréelu fonctionnaire bi aussi pour que euh, mu nekk vitrine bu leer nañ pour que aussi nit ñañ fay def ñu def leen ñu tabb leen ak euh, direction générale yépp ñu tabb leen ku ci nekk par rapport ak compétence yaa nga am par rapport ak nanga nga mëne par rapport ak la nga jàng par rapport ak nit ñi lan lañ la nangul kii sa cër la yow yaa ci ëpp xam-xam wala bokk nga ci ñi ëpp xam-xam donc pour renforcer aussi suñu démocratie waaw sénégalais Sénégal dafa nekk république nekk démocratie nekk laïque laïcité boobu ak léegi loolu moo fi am mag ñu baax sëriñ yu baax nekkoon fi bàyyi ko mu nekk noonu ci loolu lañu bëgg a wéy ba saa bu ñuy gis leneen lu nga xam ne moo gën li fi nekk te bu fekk boobaa ñun ñi bokk diine ak ñeneen ñu ñu bokk diine ñun ñëpp ñu d'accord ci noonu lañu ñu war a doxe mais Sénégal république la mooy buur amatu fi amul kenn ku nga xam ne kii moom mooy wax ne lii la ñuy def ñun ñun ñëpp euh, ñu def looloo rek parce que mu nekk coobare yi kooka donc république la ñu nekk nekkatuñu mbirum buur démocratie la ñu nekk moom mooy lépp lu ñuy def dañuy voté mais république ak démocratie rek il faut que xale yi xam ko doyul parce que boo jëlee démocratie rek mais ña fa ëpp ci diine mais peut-être ñoom ñooy doxal après dàq ñi ci des wala génne ñi ci des alors que Sénégal bi ñun ñëpp ko bokk ki tudd Paul ak Ousseynou ak Demba ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà donc euh, ci loolu la M23 di yëngatu euh, pour gàttal rek euh, ci aussi di jox yóbbal ak xelal ci affaire lu ñu naan souveraineté alimentaire di aussi jox xel ak yóbbal en matière d'industrie di fàttali na Doudou Sarr mi toog ak kuréelu M23 yëpp organisé woon nañ fi il y a 3 ans ay dialogue avec grand D sur les assises de l'énergie route de Ouakam relais la amee woon ñu woon fi askan wi yëpp <coughs> pour que opposant comme pouvoir woowoon nañ leen ci donc loolu tamit jotoon na fi am donc ci biir loolu ci biir loolu lañu ñu ne euh, moo jën wax na ko sànq gaa kenn mënatul werante kenn mënatul werante loolu dafa leer nañ ne fang que am na jéego yu am solo euh, yuñ fi dox boobu ak léegi bu fi askan wi dox bu fi nguur gi dox et cetera mais loolu rek dayul dañoo bëgg li tubaab di wax sursaut qualitatif bu ñu yeggee tey fii ñu dox ay jéego yu ëpp loolu yu sut loolu en quantité en qualité voilà ci biir loolu la m di wax ne dialogue bi na continuer bu mu dagg nañu gën a woo gën a yaatal ñi fi nekk tey ak ñi fi nekkul pour que ñi sénégalais boo mënti doon nga am ci expertise am ci xam-xam ak foo mënti doog ngay nu journaliste ngay ingénieur ngay agronome ñu fekki la fa nga nekk wala woo la fa nga nekk nga nekk opposant comme nga nekk pouvoir comme nga nekk société civile pour que dialogue boobu continuer di wéy surtout que en dooru politique bi en dehors yeneen accords yi il faut que par exemple ci ressource naturelles yi nga xam ne léegi ci suñu constitution la bokk yéen xale yi yéen a ko moom pour ëllëg yéen yéenay propriétaire bi yéenay bët bi vous êtes le propriétaire et vous êtes l'œil du propriétaire donc da ngeen ci war a am xam-xam dañ leen ci war a informer et cetera donc ci loolu la M23 euh, woote euh, di wax ne rek nañu bàyyi marché muusante te di diisoo di waxtaan parce que ci loolu la lépp xej Sénégal di réewu jàmm majorité bi suñu yeewoo ba fajar ba ci guddi affaire jàmm rek la ñuy wax Sénégal di tudde ay quartier jàmm gën wala Daaru Salaam Sénégal nga nekk séeréer nga nekk tukulóor nga nekk wolof yaa ngi wax jamtan jàmm mbaldo et cetera et cetera donc ñun ñëpp jàmm ñu bëgg jàmm la ñu wooye moom la kilifi dini aussi euh, di ñu recommander donc loolu la leen M23 bëggoon a wax tey mu nekk journée fàttali journée fàttaliku ngeen baal ma Euh, wasalaam jàmm gis ngeen ko mooy dernier mot mooy premier mot mooy dernier mot di dolli ci ñaan rek laa yukallifullaahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alayha maktasabat rabbana la tuaxizna in nasina aw xatana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala lazina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih waxfu anna waxfir lana wa arhamna anta mawlana fansurna ala xawmil kafirin jërëjëf sëñ bi